champion. waaw euh, beneen laaj mbiru Saliou Ciss euh, lan moo tax jëluloo ko. waaw football sénégalais dafa dem nekk ci benn niveau boo xam ne euh, niveau boobu tamit dañu war a xoolaat suñu joueurs yi nan lañ leen di wooyee pour woo footballeur ci équipe nationale dafa am ay critères dafa am ay charte charte yooyu mooy d'abord nga am club yàlla dafa def nit ñi que Saliou Saliou Ciss amul club donc par respect bu ma am ci Saliou en tant que professionnel bu mu doon. par respect tamit bu nu mu ci kër gi nga xam ne moom laa nekk muy fédération sénégalaise de football euh, mënuma jël joueur boo xam ne amul euh, amul amul club euh, xam naa bu baax Saliou lu mu apporté ci équipe nationale bi bokk na si samay cadre tey ci ay difficulté la nekk te muy fédération bi muy ñun ñi nga xam ne ñooy ay entraîneur bi ñun ñëpp ci ginnaawam di yaakaar ni que en tout cas dina dellu siwaat situation bu réglé incha allah beneen laaj ne équipe bi de seetlu nañ ne juróom-ñett Euh, jour rek ñoo fi am expérience bu mën a wax puisque ñoo fi joué woon benn coupe du monde à part loolu euh, fukk joueur ak juróom-ñett yëpp ay joueur yu ndaw lañ ay xale yoo xam ne amuñu expérience boobu. loolu naka ngay mën a lijjantee loolu. Kara joueur bu ndaw amatul. damay dégg sama sama sama gars yi sama xarit yi sama sama sama copain bay naan mbër mbër bu ndaw amatul ci ci ci arène bi. fii mbër bu ndaw newatu fii donc mun naa wax ni que effectivement am na ay joueurs yoo xam ne am nañu expérience bu bëri ñoo xam ne euh, def nañu ñetti kaan wala ñeenti kaan wala ñaari ñu seen ñaareelu coupe du monde bi mais je crois que lu gën am solo surtout mooy que xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu bees nañu ay compétiteurs de haut niveau nañu ñoom tamit si seeni bopp si seen i yaram si seen mentalité préparé nañu justement pour genre échéance yu mel nii genre combat yu mel nii genre euh, euh, compétition yu yu mel nii si plan boobu awma ci benn sikki sàkk xam naa ni seen manque d'expérience dinañ ko comme combler ak euh, justement seen seen motivation ak seen euh, amur boo xam ne am nañ ko si ci drapeau réew mi. Euh, commencer plutôt euh, préparation bi parce que nous savons tous que joueurs yi ñenn ñi le treize dañuy pare seen seen match yi et que ni le quinze devait être ce li nga xamante ne moom mooy data préparation bi regroupement bi comment ça va se passer. waaw c'est euh, merci beaucoup Mbaye euh, préparation bi c'est simple je pense que allah ci guddi bi war a l'équipe bi war war voyager mënuma xaar dañu am ñaar wala ñeenti joueurs yoo xam ne muy Ismaïla Jacob Krépin Diatta euh, Pape ak euh, ak Bamba ñoo war a jouer dimanche Boulaye ak euh, Pape Abou Cissé mooy cinq six joueurs yoo xam ne ñoom normalement ñun mënuñ leen xaar donc la ñu décidé ak fédération bi mooy que l' du groupe bu bu bu disponible voyager dem c'est-à-dire que quitter Paris le ma ne egg foofu le 13 justement le 14 ñu commencé entraînement yi yeneen joueurs yoo xam ne ñoom dañu war a jouer dimanche soir nga xam ne équipe bi mënu leen yóbbu vol spécial bi mënu leen yóbbu ñu ngi xool ak euh, team manager bi nga xam ne mooy Lamine Diatta nan lañuy mënee xool pour que ñu ñoom ñu jël seen i euh, seen avion à partir de leur club pour que ñu mën ñu rejoindre fële Qatar. merci Se Seykou Seydi ah am na keneen ku dese ku mun a laaj dañuy jël ñaar rek ci wolof. Euh, waaw. kookan la waaw. nga laaj sa laaj si wolof. jox ko micro bi. bonjour tout le monde. Euh, lu ma bëggoon a laaj coach c'est par rapport ak euh, préparation bi ba tey. Abdoulaye mun nga yëkkati kàddu bi mun nga wax. par rapport ak préparation bi ba tey ndax gis nañ ni boo di dem coupe du monde dafa am lu muy laaj. dafa am disposition yi ñuy jël mooy ci fédération bi mooy ci euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ministère bi est-ce que tey jox nañ la ay garantie yu weer wér boo demee ca coupe du monde ba ca Qatar doo am ay problème par rapport ak logement hôtel wala li nga xam ne moom mooy seen disposition yi ngeen jël. parce que tamit loolu c'est important par rapport ak état d'esprit li nga xam ne moom mooy. équipe ngeen baal déglu leen ko waaye déglu leen ko. que ci fu ñuy fubalee ca la ñuy jafe mooy ci fu ñuy loger est-ce que Sénégal tey moom mu ci disposition koo xam ne du am jafe-jafe yooyu merci. waaw mais loolu xam nga football moom day day day football day évoluer football day évoluer réalité euh, yu fi amoon ci année yële passé bu doon sax am na. je pense que réalité yooyu léegi changé na léegi je pense que am nañu ay mission de prospection boo suivre tuuti suñu suñu délégation ba dañuy def bi ñu qualifié ba léegi mën naa wax ni que Qatar dem nañ fa au moins cinq ou six fois justement dem xool suñu suñu suñu dëkkuwaay foofu dem xool suñu terrain d'entraînement yi dem xool hébergement bi loolu yëpp na seen xel daal lépp lépp na yoon xam naa ni fédération fédéraux yëpp def nañ lépp seen ñu a def kon ñaanal leen ko rek di dem ak jàmm. joxal micro bi tur bi naka la. dafa la.